tolloon ci fukki nit ak ñeent fukki nit ak ñeent yu ñàkkoon seen bakkan ci ñaxtu juróomi fan yu ñu amaloon ginnaaw bi ñu jàppee Ousmane Sonko ci mars 2021 ñu rek gaaw taxawal ay combat yu bari ngir rek yoon def liggéeyam ca mbir moomee ginnaaw loolee nag famille ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan déposé woon rek ay plainte waaye nag boobaak léegi yoon dugal ca loxoom. am na ñeenti famille yoo xam ne jegoon nañu amnistie ak RADDHO ak Ligue pour déposer ay plainte ëpp na léegi ñaari at ñaari at yoo xam ne. Euh, juge d'instruction bi nga moom la ñu jox dossier bi def ci benn act boo xam ne n'est-ce pas euh, wane na ne bugg la leeral mbir mi. ginnaaw loolee it ba tey nguur gi taxawal ab commission d'enquête. ñun dañ ci kontaanoon te salué woon nañu ko wante depuis boobu ba léegi gisuñu ci benn avancement gisuñu ci benn jéego boo xam ne nii alors gouvernement bi def na ko pour jëm ci wàllu. Euh, rendre justice maanaam euh, dëgg euh, ñu ñu xam fan la dëgg féetoo. mu di ay plainte yoo xam ne nag amul benn yoon poursuite ay commission d'enquête yoo xam ne nag mujj nañ ko fàtte famille ñi nga xam ni ñoo ca ñàkk seen bakkan mujj rek yóbbu mbir yi ca biti réew. muy au niveau de la cour ak au niveau des Nations Unies. su dee citoyen yu état nga te état bi lor la day lay laaj nga déposer d'abord plainte ci sa état waaye su dee sa état nag deful dara. n'est-ce pas pour respecter say droit booba may nañ la nga dem au niveau sous-régional ak au international. ba tey jii nag na nga xam ne noonu la mbir ya di doxee bett leen lool. nga yor sa drapeau police la ba tey Sénégal noppi si impunité fu tànk tànk mu am si dëkk rek policiers yi dañ continuer di rey Sénégalais yi. tey fi ñu toll nii waruñu fi woon yegg si parce que waruñu woon toll ci tey ñun famille victime yi ñuy toog di réclamer justice. heure bi waroon nañu dépassé loolu bu yàgg parce que 2021 ba tey dafa yàgg. ca njëlbeen nag famille yu bari demuñu woon rek déposer plante waaye fi mu nekk nii nag ñu bari ci ñoom ña nga rek tàmbali du ko def boobule dossier nag yi di Amnesty International RADDHO ak Ligue sénégalaise des droits di ca dugal seen loxo ci anam yépp.